برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوي هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال البدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله نوانجي سنت الله جلتي مولانا رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ñoo نيو نيب دابور دي di leen waxtaan wu gàtt lay doon ndax dafa am ñoo xam ne dañuy ñibbi fu sori lool te yàgg fi depuis 5 heures ñoo ngi fi ñoo ngi nuyu président mohammed Khan depuis États-Unis di nuyu présidente Ndeye Fatou Diaw di ko ndokkeel ci tur biñ ko tuddee aji daraame ñoo ngi koy ndokkeel am na doom tuddee na ko Ndeye Fatou Diaw yàlla na doom ji mag jox ko maqaama yi dundal ko ci l'islam rey ko ci ci barke amin euh ngi nuyu borom xam-xam yi teew ci hadra bi imam dagga saar oustaz Bay caam ak kelifa yi nga xam ne fi. ngi di ci jital taha di doomu hasan Dem mi nga xam ne toujours damay wax moma ma jox wirdu mhm. wa dama koy ndamo nak ndax hasan Dem bi ma jox wirdu khalen? na nek xale waye alhamdullilah mu jox ma wirdu ne ma Amadou oh. yaadu e baaba ma o haalan ma no mbirdirta <laughs> moy ceerno amadou àndal ak sa papa mu wax la nooy wirdo sama papa ñu génn mu ne ma sant naa yàlla bi la ceerno Hasan dem tuddee ceerno amadou waaw baatu ceerno bi bi ci nekkee rek mu ne sant na yàlla ci loolu moom ñoo ngi nuyu taaha ñëw na léegi macha allah ala fujaatin lam nakun an natawaqau annahu yaxdur walhamdulillahi xadara mm-hmm. fa zaada alxadrata zinatan وزادها بهجة وزادها جمالا مرحبا بك وبما معك وبمن معك ñoo ngi nuyu Seydi Ali di doom alaji baawu kooku du gan ci xadra bi waaw ci la bokk nit ku am xam-xam wàccee boppam ndeysaan saa bu xadara jotee te moo ngi fi ci Dakar rek xolam lay nuyu tayil adami ila sahati wujud kon bindeef mi du ba bëstiku ko ci dem ci ettub maanaam am am su nekkuloon yonti yàlla muhammad saa sallam mais li bàyyi wax ahlan bi shahril mawlidi lan la ci teg mooy zakkarana ndekete ñun li ñuy daje di dem di gàmm du dara du pour lekki lekk yu neex du pour uti xaalis yaa ngi dégg de du pour euh, change air déedéet mais pour fàttaliku yonti yàlla muhammad saa sallam moo tax mu ne zakkarana fàttali nañu bil mahtari cosaan bi cosaan bi mooy yonti yàlla muhammad ndax yent yàlla aadama sax su nekkuloon yent yàlla muhammad yent yàlla aadama du am aslil usuli bàyyi ne mooy cosaanu cosaani cosaan gi mooy aadama waaye cosaanu cosaan yi mooy yent yàlla muhammad saa sallam mu ne as sayidi foofu as sayidi alif ak laam baa nga fa aslil usuli sayidi am na ñu koy jànge aslil usuli sayidi déedéet wasnu gi baax na waaye li bàyyi bëgg mooy aslul usuli ka nga xam ne as sayid mooy sang ba Nekul sax sayidi mais as sayyid comme kan nak da ngay way il faut nga xëcc ko nga ne as lil as sayidi habibina al Mubajjal. mooy habibina moy suñu soppé al mubajjal kiñ magal suñu magal. rek suñu may wax wa magal nah, ndax ñetti haram la mi mak ak ak qaaf ak lam mim bi mawlid magal la ga bi di gam lam bi di leelal fu xadiri daanaka ñettee ñettee fa nga fa waye dama ne suñuy gamuji ji li tax ñu jog moy magali fatali fàttaliku ki nga xamne baye bàyyi law alima al aqwaamu maana muhammadin haqiqata ilmin azamuhu wa majjadu ay khallu xallul hasla waqfu muhammadan wa illa taraw ni dahra jidda baray baye nee falaw fa law al aqwaamu nit ñi suñ xamone maana muhammadin lan moy deg deg yent yàlla muhammad konon du ñak seeni bakri fi di wax ne ngàmm daa araam déedéet kon azamuhu dañ koy magal xolal wa bajjalu gis nga bokk na ci màggal yonent bi bés gëm juddu nga nga nga yow yaa ngi nii rek sa bésu anniversaire su ñëwee ngay rey ñi ci xumbal ah jënd lu nekk ay bong bong rëdd fii yaa ngi dégg ëf fii ay sondel def lu nekk bés bi nga xam ne yonent bi ma nga xam ne su nekkuloon moom yàlla du sàkk mbindeef mi nga taxaw ne loolu bidaa la bidaa la hmm? mais est ce que yow màggal sa bésu juddi juddu da nga ko da nga ko gis ñu bind ko fenn déedéet mais léegi ci cadre sant yàlla la rek ndax cheikh abdoulaye dia nee sama sëriñ bi mu ajee màkk jamono jooju yàgg na nag hmm, amaguñ sax indépendant mu ne jamono jooju eh, eh, bépp réew bu ñëw aji rek seen mbooloo dañ leen di booleeg benn policier wala ñaar ak borom xam-xam goo xam ne yëpp lépp lu ngeen soxla ci laaj borom xam-xam googu ngeen koy laaj waaw jamono jooju noonu la hmm. réew mu nekk rek danañ leen may ñaari policier ak benn borom xam-xam ñaari police yi dañuy garder borom xam-xam borom xam-xam bi nak moy waxtaan ci diine gi lu ngeen am di laaj ngeen laaj ko waxtaan na lu yag nak gaa yang koy laaj ba am kenn ku ko laaj nak ne ko maza taqulu fi taazimi mawlidi rasulillahi salai sallam lan ngeen wax ci magal juddu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yegal go rek borom xam-xam ne ko bidatun waftiraun wa inhirafun laysa lahu fil islam islaami ayi wajhin maanaam bidaa la maanaam kàcc la tiaxan la ñi ñe ko sos waye amul anam ci l'islam waaw ah, muy pare rek Cheikh Abdoulaye nee na sama sëriñ yëkkati baaraamam ne ko lii suwaalun am naa laaj oh. waa ji ne ko tafaddal yegsil mu ne ko maza taqulu fi taazimi mawalidi duwal lan nga wax ci feetu indépendance pour bés bi lañ moom suñ bopp ñuy màggal bés bi loo ci wax xam nga ñemewu ko araamal ndax police yaa ngi taxaw ñoom <laughs> su indépendance jotee dañuy màggal seen réew من نعم نعم جائز جائز لولو دغان سي عبد الله جانك اوفين وتوفين كيف تجوز موالد الدول وتحرم مولد من لولاه لما وجدت تلك الدول من يا تسخري كيف تجوز موالد الدول نان غاي دغان لي فيت وتحرم مولد من لولاه لما وجدت تلك الدول غاي ارام المولد كو خامني سو نيفول دوله يي ام ريوي دون ام كي غورل ريوي ييب كاي تيك ما يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم mu ne ko neel astaghfirullah mm-hmm. neel astaghfirullah waa ji ne astaghfirullah mm-hmm. ndax na dafa bokk ci lislaam suñ la waxee waxal astaghfirullah baalul yàlla nga ne astaghfirullah moo tax mu ne waa ji istaghfir rabbak waa ji ne astaghfirullah mu daal di toogaan hmm? moo tax ñoo ngi toll tey ci weeru gàmmoo ngi nii wulidal huda fal oh. kainaatu diyaa وفم الزمان تبسم وسناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يذهو والحزيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء والوهي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع رواه والرواء يوم يتيه على الزمان صباهه ومساوه بمحمد وضاه احمد شوقي نانا ولد الهدى نجوب جدنا موي بيان انتبه صلى الله عليه وسلم جدو فالكائنات من مبولم بين ديف ميديا اون لير لاني تبلا يننتبه جدو لفي نكون سن لاكو واخي دا غاي ديديت دانيو ري ري لون نيك تي رير نيك تي لندم كو اوب سا دوله سا مورم ري كو جيجين بيغوم جيجين جدو صاح ني ري لا لول محمد صلى الله عليه وسلم فيكون waaw am na ci jaahiliya koo xam ne daa rëy rëylu mu dem ca suuqu ukaada maanaam marché boobu nga xam ne fa la daan arab yi di daje di joxe seen discours di wéy seen i wéy waa ji ndeysaan def discours gu rafet ñëpp kontaan si am ku jóg ne ko kasarallahu am saalaka walla yàlla na yàlla bëril ñu mel ni yow mu gestu ngir rëy rëylu gi mu ne faqat kallaftumullah shatatan mu ne indil ngeen yàlla problème na pour mu sàkk ku mel ni man maanaam rëy na ba pour yàlla def ku mel ni moom loolu moom problème la ci yàlla faqad kallabtumullaha shatatan yonent bi fekk arab yi ñoo ngi ci xaal googu rëy rëy lu bari yàlla pour mu indi ku mel ni yow loolu jafe-jafe la ci moom problème la ci moom yonent bi ñëw indi jaasi indi xam-xam leer buy dox ci kaw suuf ku ko nangu bismillah ku ko nanguwul jaasi ñëw dal sa kaw bi hudal kitaabi daa fa man lam yartadi bi hudal kitaabi fa bil kataibi yurday wàccee boppam nag ba suy lekk am na benn naafeq bu ko seen muy lekk ne unzuru yajlisu kama yajlisu al abdu wa yaakulu kama yaakulu al abdu xool leen ko muy toog comme ni jaam di tooge muy lekk comme ni jaam di lekk lekkee yonent bi ne ayu naasi abadu minna xanaa di daan wax ne yonent bi da jël leen jaasi rey ko kii moo ñàkk teggi ko waye nak def ko ne ayyun nasi a'budu minna kan ci doomu adamay moma gëna nek jamm lan lay junj ha ah, moy yonenti ga nekko nak yalla milliard at di jamm yalla bobu kenen kuy wara jamm yalla nekku rasulun sawa fil ghaib, dahran muwaxidan wa ma sama man yen fii wa tammalahu Wulid wulida alhuda njub judduna fal kainatu qiyaaru bindef yeb leer na kenn tasxarewul du ko bañ bes boba ak ku bañ ñu màggal ko hmm? wa famu zamaani mu ne gémmeñu jamono te bassumun moo ngi muuñ wa sanaaun moo ngi tagg ngir lan ngir bég ci juddug yonent yàlla muhammad saai sallam mu dem ba ne yow mun yatiihu ala zamaani sabahuhu wa masaauhu bi muhammadin waddaahu bés la boo xam ne yatiihu ala zamaani bés baa ngi tiitaru ca jamono ci kaw jamono sabaahu suba gi suba juddug yonent yàlla muhammad noo ngi ndamu ci kaw mbolem suba yi ba bis pencum yàlla wa masaa'uhu ngon nga bi muhammadin wadda guddiga dafa lere yonent yàlla muhammad saai sallam ba sub juddu yonente be ngi nonu ñun nak kaw lax lañ koy faral di defé ndax dafa am ñun yee ñun dañ ñoy yé dafa am ñun yee moy nar bi def ñu ne mawlidul mustafa stahalla fa halla zurtumu lil madinati hiina halla naar bee ñu ko wax te borom xam-xam la surtout yonent bi la mënoon na ko màggal këram borom daara la taalif na ay téere jàngale na lu ne bindi na lu ne waaye moo ñu mustafa stahalla fa halla zurtumu lil madinati hiina halla mawlidul mustafa juddug yonent bi istahalla teew na waaye fa halla lu teewoon zurtumu lil madinati ngeen dem ca madina ah. hiina halla ba weer wi feeñee hmm. kon su weer wi feeñee ñu ne ko ñun madina rek lañ ñu dem ndax cheikhaani yaa ngi dégg di Cheikh Alimou Mouhamadou Toul. loolu yàlla gu màgg googu. yàlla xam ku ko raw ci wilaaya. yàlla xam ku ko raw ci xam-xam. kooku moom xaw ma woon su Baye Niass amul woon. kan mooy war a nekk sëriñam. Cheikh Alimou Mouhamadou Toul. dafa doon dem Medina di dem ba mu mujj di raam mënul taxaw. mu ne fekk ruuxu baa ngi ci yaram bi rek. day dem Medina Baye. mu ne allani min Medina. أدنو دنوا فيه للنفس منية ومرام إن روحي ومنشأ الروح فيها وهي لي أن كل المواطن الشام شيخاني نيني ألني خين من من مدينة أدنو دنوا يا الله مايما ما مدينة باي jege بو خمنا فيه للنفس منية ومرام munyatun wa maraam sama bakkan def ci am munyatun mébitam ca yàlla mu ne ndax sama ruuxu ak sama cosaanu ruuxu yëpp ca madina la maanaam su mooy madina mooy sama cham ci mboolem place cham nag mooy place ba doon yonent yi di wàcc waaw ardun nubuwati chamun kullama zakaru ard alhijaazi laha alqariyat assalami maanaam yonent yi cham lañ daan wàcc jamono yooyu suñu waxee cham maanaam damask nga ci waaye da ngay gis égypte ngis ci cham nga dem ba Syrie ba Ordon yaa ngi dégg nga dem ba Palestine loolu yëpp ci ci ci Cham la bokkoon léegi nag lañ ko texali waaye même Iraq ci Cham la bokkoon jamono yooyu ndax yonent yi fa lañ daan wàcc fu yonent bi daan wàcc rek jamono yooyu ci Cham la bokk ba yonent yàlla Muhammad moo ñëw wàccul Cham ndax moo ngi wàcc Hijaaz waaye yonent yi fañ daan wàcc la ko jëlee Iraq fa la ñoom yonent yàlla Nuuhu nekkoon yaa ngi dégg ba Misra ñoom yàlla yonent yàlla Muusa nga dem yaa ngi ba Palestine Ibrahim yaa ngi dégg fa lañ ko suul sax ca baldatul Xalil moy ardu nubuwwata Chaamu Cheikhaan nee na man sama sham moy rew yonenti fa barkay dan wàcc mune moy mooy sama réew googu mooy Madina dañ daan wax wa kullama zukira smullah fi baladin adattu arjaahu min lubbi awtani mune medina mune iza ne isa continué wa iza ma min jami'i cheikhi fiha من مناراته بدت أعلام فهناك القلوب alqulubu بصف wa sururin wa tabra'ul asqaam mu ne suñ demee ba soorooru jumaa baay bi ne tëll boobu yaa ngi jublu madina baay ngay gàmmu ji cheikhaani nee ne si sooroor gi su feeñee su mandargam commencé feeñ hunaka al qulubu tuhda bi safin foofu la yàlla di sotti set ak leer ci xolu doomu aadama yi nga xam ne dara yëkkatiwu leen lu dul màggale yonent yàlla muhammad fële ca madina baay oh. mu ne wa sooroor mbégte yi daal di tàmbali ndax sooroor gi feeñ na wa tabrawul asqaamu feebar yi tambali di wér nag ndax ka fekki fofé pour magal yonenti moy maulana mawlaana cheikh wa bihi diinu jadda baada ndiraasin waltibaasin wa hurrira al ahkam. ne bihi ci Baye Niass ak diinu gi jadda ci la bessé ba'da dirasin bam rappé mhm. aha Baye Niass nee ne ba mu def ne alamani sunna maahi dalali qaidi lil janna alamanil yow man diraasu sunna maahi dalali qaidi lil janna sunna yonent bi ràpp na tey ràpp na te ràppoog sunna yonent bi métti na ma tey damaa ñëw yaa ngi dégg de pour uhyi tariqa al qawmi lil quruni damaa ñëw pour beesalaat mbir yi cheikhaani nee ne wa hurrimat ahkaamu ci bàyyi lañ gorel atte yépp ñu ne ko looy ñaan mu ne l isdihaamu wa isa bilhabibi yamshil huwayna taqtafihi aimmatun alaamu lam yazal muqbilan ilayhi fa mahma daxala al masjid alsalaatu tuqaamu yaala tilka salaati fahya silaatun wa lizaaka salaami fahwa salaam cheikhaan yi nee na laytani maa ngi ñaan yàlla waroon naa man nii asmawul adana maa ngi dégg nodd ya ca Kawlax dina Baay nodd gi di nodd ci jumaa gi wa aati ma dut ma dikk wa alal baabi ma ñëw ci bunt bi fekk li duxul isdihaamu gaa yaa ngi raj rajloo kenn ku nekk ngi bëgg a dugg balaa sa morom yàkkamti ngir yaa ngi dégg de xëccoo ci yàlla mu ne wa ida bil habibi ñu jékki-jékki rek gis soppe bi mooy Maulana Cheikh bàyyi yamsil huway naa muy doxee dox gu teey googu dara yëngalu ko ci àdduna yenu kaw na gi tànk ndeyjoor gaa ngi ci sara càmmoñ gaa ngi ci arash wa ida macha yamsi maahul wujud suy dox mbindeef mi di dox ànd ak moom dox ndànk doxin gu teey googu dugg ci jumaa ji mu ne bàyyi di ñëw nga koy séen lam yazal muqbilan ilayhi bàyyi dañul moo ngi jublu jumaa ji yaa ngi ci biir di ko séen bàyyi di ñëw mu ne fa mahma daxalal masjid as-salaatu tuqaamu su duggee rek nga dégg dégg ñu lu xaama julli jot na julli mooy jokk ci yàlla waa ji su duggee rek sooy dugg rek ñuy julli fa mahma daxalal masjid as-salaatu tuqaamu salaatu nag soo ko xamee mooy jokk ci yàlla mu ne bàyyi su dox doxin boobu ba ne caraax ci jumaa ji rek te jumaa ji may jaami mooy liy dajale yaa ngi ci alamul jami julli gi taxaw na ñaa ngi dégg de foofa nag cheikhaan ne eh julli googu yàlla tilka salaati est-ce julli googu waaye silaatun googu may yàlla kese la firiwu rek jàpp oom ak sujuud ak yëkkati wa zaaka salaam yi sëlmal googu su ne asalaamaaleykum mu ne fa wa salaamu sëlmal googoy jàmm dëgg jàmm kon nag réew mooma di madina hmm. cheikhaan def ñu ne tilka ardul habib tilka ardul biha alhabibu tajalla ma alal wajhi minhu luffa lisaamu bàyyi nee ne kii cheikhaani nee ne tilka foofa kawlax Madina Baay fañ nar a dem ci gàmmo bi ardun réew la moo xam ne biha alhabibu tajalla soppee ga ñuy war a màggali guddeem guddi juddoom fala feeñee fala feeñee mooy firi def fa feeñ waaye ma alal wajhi minhu luffa lisaamu mu ne ba mu fa feeñee maskawul am na fu bëri fu mu feeñ. waaye daa maskaw foofu ba mu ñëwee nag daa dindi maskaw mu ne man la maa ngi nii foofu la feeñee ci réew mi boobu nag la waaye anta lawlaa wujudu sirrika xayban anta yow Baay Ñas lawlaa wujudu sirrika xayban su nekkuloon li yàlla amal sa sakkere xayban ca xaybu kon te laachal arwaahu wal ajsaam ruuxu yi effacé wu na yaram yi effacé wu kon kaw nu gi du taxaw sax moo tax ah, waaja ne ko ci guddi gu lëndëm googu بندق الله تر يونيكو تي شيء يات يدوي واري لأنكم في الحقيقة أصل كل شيء ومنكم تفرع كل شيء والحمد لله قبل كل شيء والحمد لله بعد كل شيء آه، محمد الحسن ابن أحمد الخديل دوغال موريتاني غلاتكو ياب خم نان بروم خم خم لم تالي تيري يالا ريكا كو خم موي محمد الحسن ابن احمد الخديم لن لا واخ بي لي مدينه الشيخ التي أعلام علم الشرع فيها تخفق سير بي يوبو غير يالا يوبوما لارض مدينه ريو مدينه التي غا خامني مدينه الشيخ مدينه باينيس التي غا خامني اعلام علم الشرع فيها تخفق ما ندراكو خم خم الشريعه ني ناو كان واخاتول نك ياغي يعني دي دي حقيقه وبه الشريعه قد تمكن سيتها وبه الحقيقه قد سما بنيانها كلتاهما لولاه أفقر رسمها بين الورى وتدكدكت أركانها تندغي نار بيكوا لأن فبه الحقيقة فبه الشريعة قد تمكن سيتها شريعة سيتو مونغي مونغي مونغي أم جبلل تي مولانا شيخ إبراهيم وبه الحقيقة قد سما بنيانه سما بنيانها ba mu ne tabaxu xaqiqa moom ngi yëkkatikoo ci Maulana Cheikh ba xaqiqa mooy xam yàlla yegg yàlla mooy xam-xamu baatin mu ne kiltaahuma ñaar yii di charia ak xaqiqa lawlaahu su nekkuloon bàyyi ñes afqara rasmuha seen mandarga daal di effacé wu bay na la war a diggante mbindeef moo tax dakk dakkat arkaanuha mooy seen ponk yi daal di màbb ba daal daal di tag su nekkuloon Maulana Cheikh Ibrahim Niass moo tax mu ne man danaa dem Madina yóbbu leen ma Madina ah Mouhamadul Hasan ibnu Ahmad al Khadim دمال مرت لم تعلم شيء ريال ذاك خام دمال تيسير من آه، ألقى وألحق ولا ألحق وسوى ألقى وألحق سما كل مقدم لقي الخليل فشعوه لا يلهق هنا لا يدفي مدينة من مدينة ألقى دم فبقى دجاج وألحق ما يك بقى مقامه سما فوفا كل مقدم bépp muqaddam boo xam ne lakkiyal xalila dafa dajeeg Baye Niass ah. waaw fa ngay dem dajeeg mu na kii gis na Baye Niass daje na ak Baye Niass dund na ak Baye Niass te fa saawuhu maqaamam ci Baye laa yulhaqu kenn mënu koo dab yóbbu leen ma foofu ngir ma gis ko jaxasoog moom foofu mu ne lillahi qawmun wuffiqu li tariqihi saidu bihi inna saida muwaffaqu mm. lillahi qawmun est ce que gaa ñooña waa Madina waa Madina Madina nag place la. Ah. waaye waa Madina ñoo ngi fees dell ci àdduna bi. waaw foo dem rek waa Madina ngay ngay dajeel su nekkee ne xam nga waa Madina. dëgg la lillaahi qawmun est ce que waa Madina ñooña qawmun ay nit ñoo xam ne. wufiqu yàlla def leen dajale dëppale leen li tariqihi yoonu Mawlana Cheikh mu ne saidu bihi inna saida muwaffaq texe nañ ngir Baay Ñas تكوت خدي أم توفيق رزقوا فيوض علومه لم يحرموا منها كما حرم الأولى لم يرزقوا رزقوا يا الله وسجلنا لن فيد خم خم مولانا شيخ إبراهيم لم يحرموا منها كم كروا لن فيد يا الله لن صورة لتعزل كما حرم الأولى كم ننكر ينن يا لم يرزق ونحن خم نأمني وسج pour dik njeriñu ci faydu cheikh ibrahim nias gariqu min at-tawhid fi bahrin tama wa ka'annahum iz unqidhu mu ne xariqu dañoo lab mi ne tawhid ci wéetal yàlla dañoo wéetal yàlla ba lab ci biir wéetal yàlla gi ndax yàlla kat fekk yaa ngi koy wéetal te labagoo ci wéet gi di gis yow miy wéetal di gis yàlla ma ñuy wéetal di gis wéetal gi wéetalagoo wéetal dëgg mooy nga dañ fa wéetal gi dañ fa nga lab ba des ka ñuy wéetal loolu la waaja di wax maa chamma raihata tawhidi man tasawara indahu tawhid ku jàpp ne yaa ngi wéetal yàlla xeeñ toogoo xetu wéetal yàlla soo bëggee wéetal yàlla da nga fay dañ wéetal gi dañ fa yàlla des di wéetal boppam nekk comme nam nekk yow balaa ngaa nekk yow balaa leneen di nekk looloy tawhid moo tax maa waxada alwaxida min waxidin is kullu man waxadahu jahidu ah limaamul xarawi nee na kenn wéetalul yàlla ku ko wéetal yaa ngi koy weddi wéetal rek moom moo ko mën a defal boppam fekke moom rek a fa nekk lu dul moom nekku fa moo tax Baay Ñas nee ne ilam an al mara yudriku fi tawhidi maqaman yazunnuhu man la zawqa lahu majnunan wa ma huwa bi majnunin wa yatawahamu man la fahma lahu annahu zindiqun wa ma huwa illa siddiqun nit ki dina yegg ci tawhid ci wéetal yàlla maqaama goo xam ne ku déggul yàlla day yaakaar ne kàccoor la waaw fekke nag siddiq la est-ce que dégg nga xam ku xamul yaakaar ne dof la waaye nit la am na benn mbokk taalibe boo xam ne murid la dëkk cité port hmm? suñ mbokk Baye Fall la ku bëgg yàlla la dama leen doon firil téere Cheikh Ahmad Bamba yi Cheikh Ahmad Bamba nag téere Masalikul Jinaan daf cay wax maarifa billahi daf cay wax tawhid ba ma ne leen tawhid nag Cheikhu Tijaan yi wax na tawhid wax na tamit jazbu jazbu ak tawhid daanaka dëgg-dëgg tawhid moy jës bu nga am jës bu ci yàlla fek amo jës bu ci yàlla dal man nga wetal yàlla ma len di firil jës bu nag ma ne leen cheikhu tijaani anhu nee na jës bu ixtitaafullahi l min wadi tafriqati ila bahri aljam mooy yàlla këf la fa ngay gis lu bëri yàlla këf la ñoddi la fa ngay gis lu bëri sànni la fo xamne do gis du len li lolo jës bu ndeysaan maa ngi fàttaliku magu magu magu jotaay ga murid la mun mu ne ni xëcc ma xëcc ma waaw mu ne naa ko xëcc naa ko ñoddi <laughs> yóbbu ko foofu macha allah waaye ku ku baax la macha allah eh, pa pa Baye Fall lañ ko daan wax eh, bi ma waxee nag ma ne ko lii nii tawhid Baye ños nee na nit dana ci yegg foo xam ne Baye Niass nee na nit dana yegg ci tawhid foo xam ne ku xamul mën na yaakaar ne daa dof te fekke doful rek mu ne ma bàyyil mbir la de ma ne ko ah, <laughs> mbir la sama sama paa bu baax la woon eh, gàmm gi dara taxul ñu fay dem lu dul yokk ci bëgg yonent bi te nag soo bëggee yokk ci mbëggeelu nit xoolal ka gën a bëgg nit kooku ngay fréquenté kiram ah, waaw ah, su ma bëggee yokku ci sa mbëggeel su ma la mënul jot hmm. naa fexe jot ki la gën a bëgg may fréquenté kiram pour man laa gën a bëgg moo ñu fa yóbbu de ndax bàyyi nee ينجي دم مكة المدينة وأتوا لين دول سما خير وما قطعوا في شرط والغرب فتفدا إلى مكة إلا لشم شزاي ولملا عين اليوم عين محمد سرازره في هيكل ورواي بينينا بينينا كم دخل بنكوك سو وتلي مكة لدول يانجي أتوا فور خير سما خير نقول ورا اللون من من دم مدينة كات جم محمد صلى الله عليه وسلم كم بوبا بانيون سني أتي pour ah. yok mbeugel ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam soxlawul ñuy sori mën nañ dem ma dina bàyyi rek kaw la mm. yaa ngi dégg de màggali kooku nga xam ne su nekkuloon moom yàlla def ko indi mu nekk jirim goo xam ne yàlla def ko préparé yàlla bëggul bokk ak yonent bi kenn dañ ne tëll rek balaa moo judd yàlla rey baayam mu am juróom benn at yàlla rey yaayam teguñu ci dara Abdul Muttalib ma ko doon yar maamam yàlla rey ko féetewoog moom nag gis nga jirim képp nee na al عند الكل ضعف واضح waliit mu indaka kaana kaytata jawhara waliit mu nekk jirim indal kulli ci ñëpp daafun waadu xam kenn ku ne xam na ne daafun néew doole la lott la ñàkk man la gu feeñ waaye waliit mu indaka kaana kaytata jawhara yow yonent bi waliit mu nekk jirim indaka ci yow kaana dafa ne kaytata jawhara ngir nga nekk oor la yàllaa lay préparé mal yit mu illa saahatun maftuhatun fiiha nu kawwinu للوجود عظيمة مونا يتمو مانا نك نك جيريم مونا دو دارا لودول بن تيرين لا بوني فورمي كو نارا ديفاري ادنا بي الك موتاخ يالا ياغي ديغي دي ساك يونتي بي صلى الله عليه وسلم مو نك جيريم نك گين تي ميندف مي خ داني خير الورى من اطعم الدنيا ولم يطعم وشد على الحجاره ميزرا كي گين تي ادنا موي مات اطعم الدنيا كي سون غير ادنا بي دوندو تي جام دوندو تي نجوب دوندو تي لير موي ولم يطعم لاكل موي سون بور ادنا بي وشد على الهداره ميزرا مو جيل كالا بي ديف تي اي دو بلا مو جوك خيف بي سونال كومو دالدي ورد دانو تي سوف آه وشد من شغب احشعه وطوى تحت الهجارة كشفا مترف الأدم كون كي جنتي أدنى خير الورى من أطأم الدنيا ولم يطأم وشد على الهجارة ميزرا كي جنتي أدنى موي كي لي أدنى بور أدنى لك تمام لكل مونغي خيف وجل كالا بدفتي أي دوج تك تي pour jóg mën julli guddi ndax su jógee rek mir te su miré daan nga gis euh pass pass bu dëgër gogou himma gu dëgër gogou xuwa gu dëgër gogou bëggon na waxtaan ak ñi nga xamné dañuy faral di wéti gàmmo pour indi len ay tegtal yu leer waye day guddi lool te da ngay fekk sax daanaka jaru ko ndax fa kayfa yasixu fi l azhaani sayun isa xtaaja nahaaru ila dalili mu ne kayfa yasixu nañ lay wéree fi l ci xel shayun dara isa taaja nahaar ila dalili maanaam jant bi fenk na nga ne nit ki jant bi fenk na dootul joxe misaal gu mel noonu Seydina Ousmane ibnu Affan yonent bi yaa ngi dégg de moo ko yónni ah sa Makka pour mu wax ak yéeféer ñi daa ñëw pour lan pour ziyaare Kaaba gi rek ñibbi ñëwul pour xeex ñëwul pour dara ba mu waxee yéeféer yónnanti yonent bi ñu ne ko ah nee ko nag du mën a dugg demal ne ko du mën a dugg ren xanaa déwén rek yow nag comme que xas nga ba dugg ndax moo la yónni kaaba gaa ngi noonu man ngaa tawaaf ziyaara soo paree nga dem mu ne leen kaaba guñ tere yonent yàlla Muhammad man duma ko jege mu romb kaaba gi noonu daal di ñibbi ndax lan tere nañ yonent bi kaaba gi kaaba gi habbazal udabaaw xoolal teggin gi kaaba yàlla gi néegu yàlla gi ak li muy màgg yëpp Ousmane a ngi lay won kaaba kaaba gi amul qiima su nekkul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa la romb kaaba gi moo tax bàyyi ñes li wax ak benn borom xam-xam ñu ne ko ñun bëgg yonent bi moo ñu fi indi waaye su nekkuloon loolu aj sax am na ci benn borom xam-xam yu ne ñun ahlul maghrib ni soree kaaba gi aj waratuñu sax waaye bëgg yonent bi la rek يقولون لي فالحج فرد أداؤها وليس أداء الفرد إلا بمكة فقلت لهم إن الحبيب وسره ومظهره الأعلى لدى أرض طيبتي من مكة مكة مكة من مكة ne ah màkka de baax na nee nañ المكة man leen waaye innal habiba soppee ba mooy yonti yàlla muhammad wa sirrahu ak sekkiram ga ñaar wa mazharahul a ak teenu gi gën a koy ñu ne waaw mu ne la daa ardi tay ba la nekk maa nga tay ba yaa ngi dégg de comme sekkiram gi moom yonent bi ak sekkeram gi ak feeñu kaayam gu màgg gi ñoo nga ca tay ba bàyyi ne tay baa ñu yëkkati ah, waaw tay ba nag su la soree rek ba jege na yaa ngi dégg de waaw tilka ardun biha alhabibu tajalla ma ala alwajhi minhu ulufa lisaamu ngir màggali ji ka nga xam ne ah, su nekkoon moom eh, konoon yonent yàlla ibrahim du am yonent yàlla nuuhu du am ndax gis nga yonent yàlla abbas def na yonent bi eh, ma tagg la yonent bi ne ko bismillah tagg ma waaw ndax yonent bi ne ku ko tagg donte benn bayt la sa yaram araam na safara am tajihuka ya rasulallah rek mu tàmbale ne min qabliha tibta fi zilaali kon ñu xam ne mbir mi dara nekku fi gan lépp loo fi weddi yaakaar ne awul woon jamono yonent bi sa dégg-déggee gàtt ndax xoolal abbas mii dugg ci lislaam yàggul di tagg yonent bi fan la tàmbale min qabliha haa bi fan la balaa yàlla di sàkk kaw nu yëpp ndekete xam na mazhar xaqiqatul muhammad yi xam na dëgg-dëgg yonent yàlla muhammad ndax min qabliha balaa yàlla di sàkk adduna bi ku fay xam yonent bi yaa ngi koy xamee ci maqaama baatin waaye du ci zahir kon baatin baa nga fa woon yaa ko xamul woon min qabliha seet tabraani indi na lu wér min qabliha haa bi rek di dellu wax ñu ko min qabliha du du balaa Màkka de wala balaa Madina déedéet min qabliha balaa yàlla di sàkk kawnu yi tibta fi zilaali wa fi mustawdain haysu yuxsaful waraqu mu hmm? dem nag ba ne eh, yow yaa ngi ni tarka anta tarkabu safina wa qad uljima nasran wa ahlahu lgaraqu yow tarkabu safina yaa yéegoon ci gaal gaalu yont yàlla nuuhu gi yont yàlla nuuhu ba fi nekkee gaal ga yaa nga fa yaa sauvé ñëpp yaa ngi dégg ne yaa ngi ci biir gaal gi tarkabu safina wa qad aljama nasran wa ahlahu lgaraqu boobu nag lab yaa ngi dégg de lahaab na njanaaw yooyu naaw ak ñoñam lépp maanaam loo gis lab bi labal na ko waaye yaa nga woon ci gaal kunta a safina waqad aljama nasran wa ahlahu lgaraqu wa nag yemul foofu warabta naaral xalili muktataman tajulu fiha wa lasta tahtariku yaa nekkoon ci ci safaraak yont yàlla ibrahim <laughs> ibrahim bañ ko sànnee ci safara yow yaa nga foon kii wax lii moo ngi koy wax mu yonent bi yonent bi waxu ko ee eh, déedéet fekkewu ma ko woon man bi ma juddoo daal <laughs> ah. bi ma abdoulaye juree ak amina booba laa nekk nit waaye avant loola existé wu ma parce que ñiy weddi ñiy weddi baatin di weddi xaqiqa mënuñu d'accord ci li abbas di wax yonent bi te yonent bi dund ko balaa yaayam ak baayam di juddu ñu d'accord loolu am na te yonent bi wax ko tamit ci ay riwaaya man ak aliyu ñaari leer la ñoon bayna yaday illahi qabla xalqi samawati wal ard balaa yàlla di sàkk asamaan ak suuf man ak ali ñaari leer lañ ali ibn abi talib ñaari leer lañ ci kanamu yàlla لم يزل الله ينقلنا من الأسلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية حتى خرجت من عبد الله وخرج من أبي طالب يلا دانيو دانيو توخال تي لير تي ندغ يو سيت تي بير يو سيت بامو ген تي عبد الله بامو ген تي عبد الله مومو ген تي تي أبي طالب اي يونت بي صلى الله عليه وسلم واخ لي ييب ñu غيس ne يونت بي سامبل نيت لا دافا جودو 63 ans la fi am bam deewee dee na kenn mënatu koo gis ma su nekkee ne ñun d'accord nañ li Abbas wax min qabliha tibta fi zilaal yow fi mustawdain hay su yuxsaful waraq yonent bee nga fa woon ak li bàyyi wax rasulun wa aslu nnaasi maa un wa jëndalun wala unsa fi zaka zamani mu annisa yonent nga woon boobu suñ bàyyi aadamaa ngi ci diggante ndox ak ban su nekkee ne gën nañ loolu suñ nee tey ci jamono gi yonent bi ginnaaw ba mu génnee àdduna feeñu na nit wax ak mom jox ko dara war nañ ko gëm ko xamne mo ngi mo ngi doon dund bala mo judd sëñ bi su deewee deewul ko xamne mo ngi doon dund bala mo judd su la né ba mu deewee war nga ko nangu wa way nak il faut kon nga weddi il faut nga weddi ne yonent bi dundul won avant mo judd so nangu woni so nangu woni maanaam mo ngi doon dund avant mo judd rek ba légui war nga nangu né ba légui lam waxone waliyu bi ah lastu bi mayitin wa innama mawti ibaratun am man laa yafqahu an illah wa amma man yafqahu an illahi fa ha ana araahu wa yaraani yonent bee ko wax waliyu bi man deewuma yaa ngi may gis mu ne waaw mu ne ko innama mawti sama de ibaratun de firi am man laa yafqahu an illahi ku déggul yàlla dafa ragal a wax sax ku ma déggul man yonent bi ndax soo déggul yàlla rek déggoo yonent bi soo déggul yonent bi déggoo yàlla maanaam soo déggul yonent bi rek déggoo yàlla soo déggul yàlla déggoo yonent bi yàlla ak yonent ba fa maarifatul mawla bi maarifati nabi wa maarifatu nabi bi irfaani qudwati mu ne wa innama mawti sama dee ibaratun day firi am man laa yafqahu anillah ku déggul yàlla wa amma man yafqahu anillaahi waaye kuy dégg yàlla fa ha ana araahu wa yaraani maa ngi koy gis moom may gis man euh, moo tax nag eh, gàmmu gi moom pour ñu def ko daanaka euh, euh, loolu dalil yi tegtal yi dafa leer nañ danañ ci def benn jotaay. Mm-hmm. Eh, wala suñ ñu invité ci télé bi balaa gàmmo incha allah ñu joxe ci ay tegtal yu leer yoo xam ne léeg-léeg nit dana taxaw di la critiquer loolu di la ko ŋàññil ba sax daanaka soo gisee kuy dem sax gàmmo da ngay bëgg a jël paaka jam ko mm-hmm. te fekkee ñàkk dégg la rek kon yonent bi saa sallam bëgg ko texe la yàlla nañu yàlla may bëggee la eh, bëgg Maulana Cheikh Ibrahim ñas texe la yàlla nañu ko yàlla may ci barke alxuraan si daraja yonent bi mm-hmm. Euh, teewoon nañ daawaati jéeg ak daaw jéeg ak daaw ak ren yàlla nañ teewaat déwén waaw yàlla may ñu yokkute yu raw yam ñu doon may dañuy ànd comme nañ daan àndee waaw jël biis yi dem Madina bàyyi ñu sa jëlaat nekk fa fan yañ fa daan nekk dal fañ daan dal ziyaare comme nañ doon ziyaare ñibbi si incha allah ci tawfiq ñoo ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla mayee ñu ko bëggee si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa Alhamdulillah awalu da'wana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin ila hin wasalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu caam képp eh, képp caam moo ngoog <laughs> moom moom bàyyi rek a ya, ko ñor waaw képp caam bàyyi rek a ko ñor yàlla na la bàyyi jëflante ak yow ci barke alquran yàlla na la yàlla yokk ci daraja yonent bi maa ngi wax nag Ahmed Bachir moo ngi nii eh, may nañ ko soxna waaw may nañ ko soxna barki eh, pour joxi rek ñu ne ñu macha macha allah eh, il faut ñu takk ko waaw loolu tawfiq la nee naa ko Ahmad Basir santal yàlla ndax yonent bi nee ne xayrul birri aajiluhu yu baax yi bi ci gën a baax mooy bi ci gën a gaaw yu baax yi bi ci gën a baax mooy bi ci gën a gaaw te sëy yi bi ci gën a am barke mooy bi gën a yomb sëy yi bi ci gën a am barke mooy bi gën a yomb waaw ndax yonent bi sax may may mayee na soxna ci ci benn laay alxuraan amoo dara mu ne amoo dara ma jàngal ko aay alxuraan mi nga yéene ko tiyaab bi hmm? nga gis kon sëy bu yomb barki la yàlla na yàlla defal la barki ci sëy bi yàlla na la ci yàlla may maanaam njaboot yu góor ak yu jigéen yàlla may leen ay rakk yu bokk ndey ak baay yàlla boole xool yi boole xalaat yi ci daraja yonent bi saai sallam barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan